mbokki baaxoo di teewlu xibaaru bambuk dalee na jàmm ci seen tënkum xabaaru uh, bés bi uh, gannaaw ba mu amalee ab waxtaan ak yenn uh, taskatu xabaar bi yëkkati fi ay kàddu di wane ne rek parti boobu mu nekk di PS fas yéene na am candidat ki nga xam ne nag mooy Abdoulaye Wilane ci ndaje bi nga xam ne mujj nañ ko am fële ca secrétariat exécutif bu parti ba daal dinay dellu ci li mu waxoon moom nag jàpp na ne jamono ji li nga xam ne moo jëm ci candidature PS nekkut nekkagul loo xam ne waxtaanee nañ ko euh, te parti boobu nga xam ne ci la nekk te mu nekk ci euh, coalition présidentielle nekk ci mouvance présidentielle bi euh, fi mu nekkoon démb ci la nekk te lim nekkoon démb aussi ci la nekk loolu nag mu ko xam le gannaaw ba nga xamee ne coow li bëri na lool ba mu yëkkatee kàddu di wax xamle rek ne askan mi Euh, PS euh, dafa fas ne ni ki deux mille vingt quatre euh, daal di taxawal benn candidat moom nag daal dina ci dellu siwaat bu baax ndax jàpp na ne jumte la woon te waxtaanee nañ ko ci seen biir ba tënk jamono ji daal ñoom ñu ngi toog di waxtaan waaye heure bu jotee pour que PS déclaré wane na ñoom dinañ am candidat moom mi nga xam ne mooy porte parole bi dina ko daal di génne moom tamit daal dina xam ne ne ni kii ay bis yi di ñëw dina amoon waxtaan bu yaatu gën a ñëw ci décision bi nga xam ne mujj na koo jël ci loolu gannaaw loolu ñu àddu ci ndaje bi nga xam ne association des maires muy kuréel gi ëmb euh, maire yi nekk ci Sénégal amaloon nañ ko euh, ki nga xam ne nag moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllum collectivité territoriale maanaam maire yi nu muy doxee di ministre Mamadou Talla euh, teewoon na ci ndaje ba moom nag laata muy tàmbali waxtaan bi sant na waaye tamit rafetlu na Euh, déggoo bi nga xam ne am na ci taxaw bi nga xam ne taxawal nañ bureau boobu nga xam ne moo ëmb maire yi nekk fii ci euh, réew mi gannaaw loolu tamit daal dinay àddu ci euh, wax ji nga xam ne yenn ci maire opposition bi daal dinañ koy yëkkati di xam ne rek ne ñoom du ñuy jot seen fonds de dotation wala boog maire yi nekkee ci nguur gi ñoo leen di ëppale moom nag jàpp na ne loolu faux procès la maanaam lu tegul ci yoon la c'est juste que ñoom dañoo teg ay critères yoo xam ne bépp maire boo xam ne bëgg nga jot ci euh, fonds de dotation yooyu nga mën see euh, jot moom tamit euh, ministre bi di Maodo Talla daal dina xam ne ne naam li nga xam ne mooy acte trois de la de décentralisation am na ay incohérence waaye nag njiitu réew mi ak gouvernement bi ñu ngi teg ay mécanismes yoo xam ne dinay fexe ba li nga xam ne ay manquement la ñu daal di koy corriger naa loolu ñaar du fële ca Burkina Faso lu toll si juróom benn fukki eh, ci ay jigéen ak ay ndaw eh, lañ daal di eh, enlever ñu leen enlever nag ay nit ñu armé lañ ñu daal di leen tuuma sax ñu nekk si ay jihadiste dëkkee ca gox ba loolu nag ki ko xam ne mooy parquet bi nga xam procureur bi nga xam ne mooy procureur de Djibo moom lañ daal di jox xabaar bi mu daal di koy yeggee askan bi di xam leen ne lu toll si juróom benn fukki nit mu xam ay jigéen ak ay ndaw ñoom la jihadiste yi dëkkee foofu ca Burkina Faso daal di enlever. ñoom nag euh, ñu ngi def seen kemt lay kàttan ngir ko fexe ba ñooñu mën a dellu ci seen euh, njaboot ñaadu ci tàggat yaram ak match amicale bi nga xam ne amoon na euh, démb ci diggante Paris Saint-Germain ak sélection saoudienne bi nga xam ne Cristiano Ronaldo moo ko jiitoon Paris nag ñu gis ne seen star ku ci mel ne Mbappé Messi ba ci Neymar teewoon nañ ci ndaje ba Paris nag moo mujj a gañe juróomi bal ci ñeent gannaaw ba nga xamee ne Lionel Messi moo tijji